mana ne combat boobu. combat du ko la combat boo xamante ne si combat mënu ko dàq ci saison ren bii ñu jëm incha allah ci deux mille vingt un bi. ñoom ñaar kuy favori. kuy favori ah borom tamit euh, man de du ma ne diw mooy favori diw mooy nangam waaye daal li ma a wax ci gàttal. combat la boo xamante ne combat bu neex la. bu neex a neex a neex a neex bu diiree tuuti moom dina neex. waaye nag bu gaawee tamit mën na neex. léegi bu ci kan lay neex. ci ñoom bu gaawee ci kan lay neex <laughs> maanaam bu gaawee donc ku la gën a oyof dàq lay def ay affaires yu sew mun nam am ku ci ëpp caay caay daal. waaw affaire yu sew ay cas rek. Mm. waaw yaa ngi dégg waaw ñoom seen <laughs> ay cas yaa ngi dégg mm. mais beneen bi daal combat bi sax man gëmoo mu gaaw parce que gëm naa ne daal ñoom ñaar ñëpp. ku respecté seen adversaire la ñoom ñaa boo Boy day joxe cër day xaar Tapha day joxe cër day xaar mm-hmm. lu mu gis tay def lu mu gisul du ko def boo Niang aussi tamit c'est la même chose mm-hmm. waaye daal jàpp na ne daal boobu gi dégg-dégg combat du leen dàq